tey dangay yëg de. saa damaa yëg loo si baraay bi nag. waaw nice nice mi ngi ko mais booy bëggoon naa yow waxtaan nag. waxtaan. laaj. booy lan la gisoo ñu jéem a def benn social boo xamante ni pour voir liy dem di màjjaale. waaye dañu am su ngoor ñu def ay café ay ndogu jox gaa yi woo. booy pourtant dañoo wax idée la léegi. tey dëgg la fu jëlee bi. soo wooree da def lu baax rek yokk ko. nice loolu baax na. Hmm. léegi loolu kañ lañ koy commencé. tey tey léegi nii. mën nañ ko dama jug di sant ki may salaam. te mooy rabbana buur bi tudd salaam allah di buur yàlla mi doon salaam ki jox waaw mais ci waaw yow sap sap mais teewul dañ koy dañ koy loolu solo mais grand soxla woon la quoi ah, waaw ñun da bàyyi mooy loolu ay ndog doon def fii si kon ay bëgg a xëy màjjal jox néew doole ñi nga xam ne si koñ bi te amuñu luñ dogoo dimbale leen ko. waaw loolu am na mën nga am loo si jàppale. waaw loolu am na solo mooy suñu grand nga quoi xam nga nekk ci koñ bi quoi doon doon grand bu sérieux xam nga. leer na ñu def dara te ñëw ci bëri na ñu ngi romb ñoo xam ne sama. li mooy daam nga nga xam ne waaw daam. noonu la dem loolu moom lu am solo la moom wax dëgg yàlla. waaw xoolal fii rek lañ koy defee. waaw suñu bébé mooy bébé rek ngay seet. ah noonu la si ngoon maa bi daal. loolu am na solo tey si ngoon quoi. waaw waaw loolu am na solo sa ngoon la rek moom faaw mu participer ji. te loolu moom wax dëgg yàlla ma cee jiitu moom. waaw jeex na waaw li moom li ngeen def moom wax dëgg yàlla lu baax li bari na de. ah déet yow. yow ku bëggee ko rek mais naaj naaj maa bàyyi faa waaw yow ñëw faa. kon noonu da nga góor gi. Ah, waaw gis nga waaw maa ngi ci maa ngi ci maa ngi ci jaajëf <laughs> sama gars yi ci sama gars yi. yow am na solo lool social moom wax dëgg yàlla baax na. dama jub di sant kii may salaam te yaa ngi toog. waaw. koor gi. ma may wax rek fi nekk tey dama laa xam tey dama laa indi nouvelle bu tey maay pay kër. kër gi papa. kër laay pay tey kër gi mënoo ko pay xam nga maay payee kër gi. mooy que yaay jaay yaay fay kër gi. tey maa bëgg a joxe dépasse yu togg ndaw. waaw ah, wax loolu mu leer. leer. leeragul bu baax ndax comme que yow bu ñu waxee rek nga naa ma doo joxe dépasse da ngaa ñàkk jom et cetera et tey maay pay ndogu li. entre parenthèse boo jëlee xaalis. bu ko lijjanti. foo ko lijjantee. Ah, li foo ko lijjantee maa ko lijjanti te damaa bëgg a invité sama xarit bi caat. léegi bala ngaa invité dama lay laaj maanaam yewul da ngaa tàmbaliwaat raxas oto wala lan daal. raxasuma oto mën na sa business mu dëkk bi business bi temps yi dafa dox affaire bi business daal du wut lijjanti doo dàq. ah boo duggee ci loo xam ne dañ lay yóbbu police de pas ma ko jógee fii naan damay damay damay ñëw di arranger. non Pape looy dugg nay leer. na sa xel dal du ma dem fenn fii laay ah, toog. baax na waaw. sama yaay dem na marché wala dema ko. sa yaay yi demagul marché de. nga doon waay. Ah, xam na ci jox xaalis wax dara de ah. ah danaa wax ne danaa wax ne parce li nga may jox wóoru. yaay. yaay ak si yow.